AGT News. neen xibaar bu neex boo xam ne daal dinañ ciy jot mooy libération bu pap Alé Niang kon loo xam ne sénégalais yëpp ñu ngi ko doon sàkku Pape Alé may nañ ko liberté provisoire encore une fois ngir mu fas yéene dellu ci àpp këram moom mi nga xam ne mi ngi woon ci ab grève de faim bu méttee métti nekkoon ci combat boo xam ni fasu ko woon yéene bàyyi tànk amul woon gain de cause tey am na ko moom nar ñibbi ab këram. toppatoo jëpp njabootam waaye itam toppatoo jàpp yaramam lii mooy li nga xam ni moom lañu doon xaar ci réewum Sénégal ci suñu àpp justice ñu daal di koy def def nañu ko nag bien vrai que jël na ab temps waaye lu ci mënti am mooy mbëgte ak satisfaction bi nga xam ni am nañ ko ci mooy di gis Pape ale ñoŋ di gis Cheikh Omar Diagne Abdou Karim Gueye ñoom ñëpp ñu ñibbi seen ay kër libre waaye itam li ñuy gën a bégloo mooy ñu xaar képp koo xam ni te nga des ca kaso ba comme ki nga xam ne moo di Fadilou Keita comme ñoom Ousmane Sarr ak képp ku fa des rek daal lay bàyyi nga ñibbi sa kër bu ko defee ab njaboot mën ci am ab satisfaction waaye itam Sénégal gi yëpp bég ci kontaan ci ndax ñooñee nga xam ne ñoo nekk ci kaso yi ñu ci ëpp bokkuñ ci ñi nga xam ni seen place foofu la seenam réew lañ doon xeexal di xeex pour lu jëm ci wàllum démocratie di xeex itam lépp loo xam ni dafa ñeel liberté yi kon nag dañ leen bàyyi ñibbi seen ay kër bég képp la sénégalais yi am Alé Niang jamono jiñ toll nii moom xel yi mën naa dal